السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسبت لي كسبا يريني من بها وصلتني أن أخادلت salli salaatan tamna rujuwa li xayri ma yurdika bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan ginnaaw bañ sante yàlla jullit yi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam di ñaanal sëriñ Mouhamadou Mountakha fi nekkal borom Touba suñu borom kattanal ko wéral ko lim naal ci liggéey borom tubaab bi yëpp def ci di ko ñaanalit sëriñ am ni Modou Mende fi nekkal maam sëriñ Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi ba lim naal ci liggéey borom Touba bi yëpp def ci lu kawe njortam di ñaanal bu Serigne Guédé Bousso mi fi nekkal Serigne Njaañe Bousso di kilifa si jotaay bii ñu nekk tey jii moo xam ne moo dëppook alxames le 26 le 26 février le 26 janvier fii ci Mbàkke Mbuso be ñu teewoon fi ci ndigalul Serigne Guédé mi fi nekkal Serigne Njaañe Bousso ci wàccaay gu ñuy wàcc ngir liggéeyub soxna jaar Mariama Bousso mi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam muy màggalu Porokhane gi mu mel ni bis ñu tey bu dellusee lay doon ñu ñaan suñu borom àgg ñu fa ci jàmm ak salaam di ñaan Serigne Gueye mi nga moo joxee ndigal ci Serigne Cheikh Ahmadou Bousso ngir mu jiite ñu liggéey bi wan ñu yoon wi te teete ñu ko mat ko fi ba lim ci njabootu si njaañ gi yëpp mu def ci lu kawe njott di ko ñaanalit Serigne Cheikh Ahmadou Bousso mi nga xam ne ngeen seen mbokk yi di jàmbaar lool ci liggéey bi te di ko ñaan kattan di ko ñaanal tawfeex bi li mu ci liggéey Serigne Njaañ bi yëpp mu def ci lu koy jox ndax wallaahi suñu sag la ndax lépp loo xam ne sëriñ bi jox na ci ndigal moo xam ci doole la moo xam ci xel la moo xam ci koppar la kenn mënu ko ci kon mën na jëriñ jum doon kon nag day mel ni bisu tey bii mbokk yi bu ngeen ko gisee jàpp leen ne weesu lenn lu waajal màgg soxna Jaaratullaahi Mariam Bousso ndax ci suba ba léegi ñu ngi fi di jàng alquran ak xasida eh, kenn ku ci nekk jaamu yàlla ga nga mën a def tam jàpp ni ci yow nga di ko def loolu lépp liñ ci jublu nag mooy ñaanal soxna ci suñ borom dolli ko ngërëm dolli ko leer ba bisam bii di ñëw mu doon ay toskale kese te lépp bu ci jógee ay daraje daraje daraje topp ci kon mu mel ni mbooloo mi ngeen gis mooy ngontum soxna jaar ñu doon def te mu dëppoog alxames le 26 janvier 2023 mu doon wàccaayu poroxaan woo xam ne liñ ci jublu mooy mbokki taali bi nga xam ne ñoom lañ fas yéene ànd ca bërëb boobee di poroxaan ñu daje fi bu ko defee saafonte kenn ku ci nekk nemmeeku sa moroom dajale suñuy doole waxtaan ci soxna jaaratullahi mariam su yaa ngi ay ñaanal ko yaa ngi alquranul karim te waajal suñuy doole ak suñu koom-koom ak suñuy daamar ak mboolem matériel bu ñu am ngir jëm ca bis boobee ñu ngi ñaan nag suñu borom ñu jàmm te ñaan suñu borom mu ñu tawféex ba liñ ci bëgg lépp am yaakaar na liggéey moom leer na nañ ndax nii ngeen ko gisee bépp mbooloo bi ngeen fi gis li ci ëpp ci ñoom dinañ jëm ci liggéey ba ndax fii ñu taxaw tey jii bu talaata ak jàmm ñetti biis war na fee déparé ak avion boo xam ne mooy sa bagage lépp nag liñ ci jublu mooy ngir waajal liggéey soxna jaar bi nga xam ne talaata suba lañ fi déparé yeneen daayira yi nga xam ne ñoom it dañoo nekk ci yeneen bërëb yi fasal ci koo ñoom it foofee ñu nekk gaare nañ fa ay daamar yoo xam ne jubluñ ci lenn lu fekkante ca bërëb boobee ngir ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi liggéey bi nag weesu lenn lu dut dem fa berneer gan yi te ni ko sëriñ bu bëggee togg ay berne ci tàmbale ko àllarba alxemes ba ajjuma ci takkusaan sëriñ bi ñaanal moom sëriñ Guédé ci ndigaloo ci ci ci teewaayu jéeru ni liggéey bi sëriñ Cheikh Ahmadou Bousso lépp doon tawféex daal ñuy ñaan suñu mboroom kattan la ñu bañ ci jàmm ñaa leen ñu fa naan nag weesuut lenn lu liggéeyal soxna jàmm ndax ñu ngay waajal bërëb ba wàccaay woo xam ne am na mbaar moo xam ne tàmbali nañu fa depuis daaw jéeg ba léegi fi nekk nii ñuy waxee yéen ci kuule la toll kon ñu ngi ñaan suñ borom may ñu kàttan bañ man koo àggale liñ ci jublu nag mooy képp ku jógee sa bërëb ñëw kër soxna jaar Laahi Mariama Buso muy Poroxaan doo ko xàmmee kër ga nga jógee loolu nag bu ñu waxee mooy ci wàllum nekk waay wax ci wàllum waaye ci wàllum xéewal ca wàllum mboolem loo xam ne doomu aadama dana ko soxla kon daal ñi ngi ñaan mbooloo mi ci fi teew suñ borom na leen ñu àgg ci bis bi ci jàmm dugg ci jàmm génn ci alhamdulilah rabbil alamin di ñaan lu baax suñ mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew ñoo muy waa Baol Média suñ borom kàttan na leen ndax bis bi buñ ko ba léegi ci rajo bi ci télé bi lépp ñi ngi ànd ak ñun kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax Serigne Ibrahima Serigne Moustapha Thiam ñëpp ñu ngi leen di ñaanal tey ñaan suñu borom def leen teew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu asalaamaaleykum maa ngi nuyu di sant yàlla sant yonente bi sant sëñ Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi ñu ñaanal nag suñu jëwriñ sëriñ Cheikh ak sëñ Gere Bousso mi magam suñu borom yàggal leen te wéral leen di wax euh, bisimilah ci Porokhane bi man maay jëwriñ waañ bi soxna Awa Ndiaye ànd ko jigéen ñi nag euh, kenn sonn ci kenn taayu ci macha allah yi nga xamante ni moom ñu ngi ci nekk moom dara manqué wu ci mboolem loo xam ne war na ko def ñëpp ci jàpp ñu àndandoo ko di ko liggéey. di dox ci soxna jaara ay tànkam nañuy roy mais mënuñu ko jot di ñaan ci bu nee Porokhane tam nii ñu ko àndandoo fii noonu ngay àndandoo Porokhane ba màggal gi jeex lépp loo xam ne ñu koy def ñun ñëpp ñoo koy àndandoo ñooy xàccandoo ji dóorandoo di wax ne waañ yi organisation bi ko def ñii dañoo féetewoo ci mbana yi ñi féetewoo ci nokkos bi ñu féetewoo ci mbana yi ñi féetewoo ci wàllu séddale mi noonu ko organisé àndee ko fii ba Poroxaan Poroxaan tam mu ñu fa demee maanaam amuñu fa tam benn jafe parce que waañoo at kër ga dara manqué lépp loo xalaat na ma nga fa rek euh, ma fa lépp nga fa dara manqué wu ci kon dañuy santaal yàlla sant bu baax soxna Jaara bi nga xam ne moom nañuy roy di ko liggéeya di ñaan suñu borom mu defal ñu dem si jàmm jàmm suñu borom feeñu suñu yiw ñu bokk ñun ñëpp barke soxna Jaara. waaw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi itam euh, xale yi nga xamante ne bii ñoom nañu ànd si daayira bi bu ñu demee Porokhane nañuy góorgóorlu bu baax. di boole seen bopp doon benn di àndandoo di dóor di xàccandoo di góor si liggéey bi xam ne ku raxas sa ndab ba mu set nga dem Poroxaan da nga koo taatan soxna jaar fas yéene ko kon nag booy taatan soxna jaar da ngaa ñaan yàlla mu defal la ci loo xam ne boo ñëwee dana kawe sa njot moom na lay ñaan di soñ tam jëwri ni ñu góorgóorlu bu baax di soñ ñi topp ñun tam ñu góorgóorlu bu baax xam ne liggéey bu baax ñu fa yóbbu Poroxaan ba fa demee solo suñu yóbbu ñu jàpp ci liggéey bi la muy guddi muy bëccëg loolu moo ñu yóbbu